waaw macha allah comme ni ngeen ko waxee woon rek ba tey ñu ngi fii ci dëkk bu tedd bi nga xam ne moo di Touba Mbacké ci màggalu Serigne Touba gi nga xamante ne 1444 ci atum ñu nekk fii ci biir jumaa ji macha ngeen gis muritu Serigne Bamba yi fu nekk waaye jógee na fa ñëw ngir fekkee si bés bu tedd bi nga xamante ne ci la Serigne Touba ne ñëw leen ngeen sant ma yàlla ci bis bi may wax ne Serigne Touba musta woote leen musta ne kaa leen jàppale ma ci dara waaye kaa leen sant la ma yàlla ci bis bi ndax xam ne ne may yi bari na may yi kawe na njottu waaye yéenam ëpp na lot na ci sant ko mu daana ñoo leen ngeen santale ma yàlla mu mel ne fépp fu murit nekk ñu ngi Touba ba ñi nga xamante ne ñu ngi bitim réew seen xel mi yëpp mu ngi Touba waaye nag ñi nekk bitim réew dara du leen ump ci màggal gi ndax màggal TV fa séene na leen a wan lépp li nga xamante ne mooy xew ci bis bi incha allahu rabbi gis ngeen ko nii jumaa jaa ngi nii murit yaa ngi nii di siyaare fépp foo xamante ne rek ci wax yi façon di yi murit jóge na fa ñëw siyaar ki nga xamante ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu mel ne gis ngeen barabu Serigne Fall moo nekk nii xamna dañuy ànd ak Magal TV ba tay rek dégg suñu micro ay mbokki soxna laaj len manam sen taxaway ak fuñu ñu ak lu wara sen teewaay ci barab bi rek ñu dal ñuy wax sen yegg yeg ci magal gi ndax fuñu tondi mouride bo gis xolam degna xolam neexna ma sha allah waaye tam ñu baye xel bu baaxa baaxa baax li nga xamantene moy tere yi ak li nga xamne moy digle yi ñu jëfé ko. kon xamna dañuy ànd ak suñu caméraman rek dem ci ba soxna yi fi nga xamantene fa lañuy ne laaj leen ñi nga xamantene moy mooy seen yëg-yëg ci bis bi macha allah waa yaay booy ñu ngi lay yal na yàlla nangu. naka yi tey ñu bëggoon a xam sa teewaay ci barab bi. naa bëgg sëñ Fallou rek sopp ko sama doom wàññeeku ma ñëw waaye bii du sama yoonu ñëw nag bii du première ma di ko ñaanal yal na ko sëñ Touba wallu ak képp ku fi ñëw loo am ci métti yal na ko fi yàlla wàcce loo am si coono yal na ko fi yàlla wàcce ubbi xa jàmm xéewal moom mooy xaadimu rasool rek. ñaan itam sa doom jooju wàññeeku yal na ko sëriñ Fallou teeru. yal na ko siñ Fallou teeru. yéen tamit yàlla na ngeen fi yàgg taxaw. Ndeye Sow laa tudd maa ngi bàyyi ko Dakar. da ngaa ñëw siyaar suñu ah. Fallou. moom jigéen ñi sopp nañ ko de. ah moom waaw. Ah. da ngaa moom sànq ba tey moom laay ah. foo dal ci Touba. maa ngi dal Mbacke. Mhm. nga jógee ba fii. waaw waaw Bamba ko. waa kay jërëjëf xam naa ko dañuy dékkaat suñu micro rek. ak suñu benen yaay ma sha allah gis ngeen soxna yi ni soxna yi mom dañoo bëgg Serigne Fall waye dama na Serigne Fall mom ah muy borom na am mu am ndaysan tur bek sante bi ak fo bayiko man cioro ñi ngi laa tudd ñi may wax bëgg fallu di talibé soxna maam Fatou Bakay bu xaar yàlla. nga ñëw siar ci Serigne Fall sa waaw siar ko ba pare daal dem soxna maam Fatou Bakay bu xaar allah loolu lañ bëgg. fo dal ci Touba. man Dakar la dëkk. man nga dal ci kër soxna ma fatim Mbacke lay dal. macha allah macha allah. jërëjëf yaay boy, gis ngeen ko soxna yaangi nonu soxna yi mo ni ma leen ko waxe rek dama naan Serigne fallu mom ken amul ci mom sago ndax euh, njaago yi sa dañu bëgg Serigne fallu ndaysan di nuyu bu baax euh, njaago Serigne falu. bobu nga xamne ne ku dafa sop Serigne fallu bëgg Serigne fallu may wax ne rek Serigne fallu mom moy senegal xamna kon euh, ni rek lay démé gis ngeen ko nii macha allah ñu ci buntu barabu Serigne falu. mu melni ni soxna yi fi lañuy joggé di ñew di siar mu mel ni fi soxna yi di jaar ak fi góor yàlla di jaar bokkul xam naa ba tey dañuy dékkaat suñu sunu rek ak yeneen i soxna ndeysaan ñuy wax na rek ñaan moom du doy te yaakaar naa Serigne Fallou moom euh, ñun jigéen ñi macha allah sopp nañ ko lool kenn ku nekk rek boo ñëwee ak lii lay andi ak euh, aajo bi nga xamante ne moom ngay ñëw di si Serigne Fallou. maaleykum yaay booy ñu ngi lay ziar. ñu ngi nangu ziar yaay booy. beeg sant bi. man Aïda Mbaye laa tudd. macha allah uh-huh. dama ñëwoon ziar si waaw waaw dama ñëwoon ziar si. Uh-huh. Uh-huh. naka doo yëg ak ah neex rek xéwal sëñtu sëñ rek neex rek te barkeel. kon daal yaa ngi yëg mbégte ah maa ngi yëg mbégte mi sama biir xol. fii moom boo fi ñëwee waxuma la sax nga dugg ci xam mais foo romb rek sa xol sedd guy ndax ni sëñ Touba demoon ba indaale mbégte mi mais moo ñu loolu moo ñu bégal ñun ñëpp. waa mbégte mi moo ñu ko lii moo ñu indi lépp daal fi mu nekk ñun ñëpp a kontaan waaw lii mooy war ne sëñ baa liggéeyal na yàlla suñu borom waaw sëñ Touba liggéeyal na yàlla suñu borom da ngaa màggal si foo bàyyi man Pikine la bàyyi ko. ana lan ngay yëg. ah kon rek sama xol baa sedu sedd guy guy sax billaahi munu maa wax wallaahi azim li ñu fi indi yàlla bu mu nekk neen te yàlla bu mu doon suñu mujjeelu màggal di sant ya rek di sant rek sëñ Touba moom mi nga xam waral bis bi waral lépp képp ku fi ñëw rek yàlla fa aajo yi faju yi faju def gu yaram fan bu gudd bàyyi ñu fi def jàmm ci bi ñun daal loolu la ñuy ñaan ndax kontaan nañ daal ba mënuñoo wax suñu xol yi daa fees dell ak mbégte ziar naa ba pare waaye desal naa maa ngi dem eggale ji fa laa jóge si xabru sëñ Fallou laa jóge sama xarit sama soppe. sëñ Fallou soppe jigéen ñi la sama xarit sama soppe maa ko bëggal sama bopp wallaahi al azim sama bopp yee <laughs> te nga kaa bàyyeeg man rek. <laughs> jërëjëf soxna si euh, mi ngi noonu. taxaa bu baax mu yàgg fi lool te wér borom mbégte mi waaw yal na ko yàlla. yàlla nangu ziyaata nangu ñaan yëpp macha allah. kon mi ngi noonu ni mu koy waxee saa su nekk rek yéene bi nga xam ne moom la taalibe yi am ba ñëw fii ci barabu tedd di barab bi nga xamante ne fii mooy barabu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadima Rasoul moom mi nga xam ne moom la Serigne Moussa Ka waxoon ne ko a ah, Mbàkke bu di woon nag sa dem gii wolof na saraan ba su te kon billaahi ñëpp dem niiraani mi ngi nii njabootu Serigne Touba gi ñëpp a ngi fii ci jumaa ji Serigne Modou Moustapha mi ngi fii Euh, sëriñ Fallou sëriñ euh, Mourtala sëriñ Abdou Khadir Mbacke sëriñ Saliou Mbacke ñoom ñëpp ñu ngi fii ci barab bi mu mel ni gis ngeen ko taalibe yi kenn ku nekk yaa ngi ñëw di siyaar boo duggee barabu sëriñ bu mag bi boo génnee dem ci yeneen barab yi muy leeru sëriñ Touba yi nga xam ne ñoo fi nekk waaye nag boo ñëwee itam barabu sëriñ Fallou nun ngay gisee soxna yi euh, macha allah takk lool ñoo fas yéene siyaare suñu Fallou ñuy ñaan rek kenn ku nekk rek aajo ji nga fi indi rek yal na ko yàlla faj ci barkeb sëriñ Fallou ci barkeb bés bu tedd bi nga xam ne mooy bésub màggal gi Euh, kon xamna kon dañuy dékkal suñu micro rek ah, suñu benen mbokk soxna inshallah allah lepp rek dem ci siyaar bi. alaykum wa rahmatullah soxna si ñu lay ziar. delloo ziar. ñu bëggoon na xam tur beeg sante bi. Pauline Ndiaye la. fo bayiko ko. Euh, ngi bayiko Saint-Louis. da nga magas dama magasi wa fo dem ni barab suñu Fall. wa fa lañ jëm wa ah, mhm. ah suñu Fall mom jigeen ñi mom bëgg nañ ko de. bëgg nañ ko lool borom bax la. inshallah fas yéene ka ñaan soxla yi rek. yalla na nangu ci jàmm ak salam waxtu wi tembe lan ngay ñu ne suba la màggalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nga xamni moñu dimbali moñu sigil moñu sagal lan ngay yëg ci jamono ji contentement rek ak xol bu fees fees da wax deug yalla fi mom bu fi ñewé sa yaram day sax daw wax deug yalla donc dañuy ñaan rek lepp luñ fi ñaan yalla nu ko may ta yalla lepp li nga xamanteni mom lañ fi wut ci yalla nangul nu suñu jaamu yalla inshallah yàlla moom don suñu bu lu magal ya nañ ko téwé ay ati ati at té lépp lu fi jëf rek ya na ak li bëgg sëriñ Touba bëgg te nangul ñu liggéey bi ñu leen di fatalé rek ndigal li nga xamante bo batay eh, ya leen koy dégg ki di sëriñ Touba eh, Cheikh Mouhamadou Mountakha nekk fi sëriñ Touba wax nako ko di koy denk ki nga xam mo yor kàddu yoon wi di sëriñ Bassir mo suñu Abdou Khadir muy ndigal yi ak téré yi dañ ci baye xel bu baaxa baax kon ma koy waxee saa su nekk rek màggal gi moom du mumbaay waaye màggal gi diina la ak lislaam kon sama mbokk soxna yi na ngeen bàyyi xel bu baax a baax ci colka gi ak comportement bi ak ndigal yeeg tere rek ba tey ci siyaar yi xam naa dañu damay ànd ak sama caméraman rek ñu demaat ci beneen barab war leen li nga xam ne noonu la murit di siyaar see incha allahu rabbi bismillah waaw salaamaaleykum ba tey yéen a ngi ànd ak euh, Magal TV ñu ngi taxaw ak sunu papa bi ñu fas yéene ko nuyu lay nuyu la ziar foo ko ak lu war sa teewaay. ñu ko Médina Aliou Mbaye maa ngi dëkk Médina Salaam dëkk El Hadj Ñoxote foofu laa dëkk ci Sine Saloum arrondissement Nganda département Kaffrine foofu laa dëkkee dëkk bi am ñun de ñu ko Bamba Médina salam, ñëw fii ci màggal gi da rafetlu bis bi te bis bi de ñu ci sakku Serigne Touba ndax gis wax dëgg yàlla kéem tànn yàlla la ndax bis bu mel ni bii bis boo ko gisee fii boo ko gisatee yaa nga dem Makka ngaa yi dem mën a dem gis bis bu mel ni bii bis bis ko ndax mbir Serigne Touba tànk gannaaw amu ko tànk kanam rek la am kanam rek la jëm te ñun ñu xam ne ñu ngi bàyyi ko fu sori te pas naa ngeen di junne dañoo boo fii bis bi taaru bis bi ak jële fi yokkute moo tax ñu bàyyi ko fañ bàyyi ko ñëw boo fii man nga ñëw tey. man nga ñëw kër altine ci ci ngo altine di laa ñëw fii altine altine ci dix laa ñëw altine ci maa ngi ci dëkk bi su ma kër sëriñ ne fii la nekk Darou Minam waaw Darou Minam su ma kër sëriñ nekk waaw. waaw kay ba tey rek ak Magal TV gis nañ ko ñu ngi fii ci euh, mbaar bi nga xamante ne nii mooy waa Hizbut Tarqiyyah bâche bu am solo bi macha allah. waa Hizbut Tarqiyyah ñu ngi nii di jàng mooy ñi nga xamante ne wax fa yàlla ñooy njàng njàng mu am solo mi nga xamante ne moom la ci kër Touba gi di ko ci weeru koor gi nit ñi xam leen ci njàng mu am solo xam leen ci njàng mu am yar am teggin gis ngeen ko nii màggal gi fii nekk fa seeni koo njàng njàng mu am solo ba suba ci suba kenn du fi xat gis ñoo dañuy bëgg dugg sax daanaka duñu dugg lu ko ci bi rek ñu dañuy ñëw di déglu li nga xam ne mooy njàng am solo bi gis ko waaye kuréel yi macha allah mu koy waxee saa su nekk rek dama naan missionnaire bi sëriñ Bamba yi ci xasida yi mooy waa Hizbut Tarqiyyah xam naa du ñàkk dinañ dégg kenn suñu micro rek moom ñu organisation liggéey bi macha allah ba tey rek ak Magal TV. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah ba tey rek ni ñu ko waxee sànq ñu ngi taxaw ak ki nga xamante ne moo di Sëriñ Cheikh Samb nekk membre ci euh, Hizbut Tarqiyyah ci njàng mu am solo bi xam naa dañu koy bàyyi mu daal di nuyoog ñi nga xamante ne ñoo koy seetaan fii ci Magal TV wax ñu seen taxawaay ak organisation liggéey bi. suñ Cheikh Samb waa Magal TV ñoo lay ziar di nuyu. asalaamaaleykum ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax kon ñu ngi leen sant bu baax a baax ci teewaay bi ngeen teew fii ñu ngi leen sant bu baax baax ci teewaay bi ngeen teew fii te xam ni ñi ngeen ko gisee nii liggéey la boo xam ne nii chaque màggal nii lay demee nga xam ne ñetti fan yi màggal gi yëpp muy 16 safar 17 safar 18 safar njàng mi moom du taxaw senn saa euh, xanaa heure julli rek mooy heure yi nga xam ne ci la ñuy arrêté buñ jullee pare njàng mi day wëy njàng mi nag man a wax ne ñaari site lañu am fii nga xam ne fi lañ nekk muy kër sëñ Fallou gi ak fee nga xam ne mooy résidentiel u Xadim nga xam ne ne foofu it njàng ma ma ngi fay amee noonu ànd ak mu nekk loo xam ne nii moom chaque année rek dañuy fexe ba mu gàcceel at ma ko weesu kon ren ji boo leen gisee ni mu demee nii ngeen xam ne ni ak yokkute am na ci ndax bu njëkk dañ daan njàng di teg xaside yi mais ren li ñu def mooy dañoo teg euh, lu mel ne ay tablette nga xam ne du toll ak fanweer teganoon teganoon nañ ko képp kuy jànkat rek am nga boo xam ne yaa ngi yaa ngi ngi jàkkaarloo moom di ko teewlu waaye mu am un moniteur boo xam ne ni moom moo koy dawal kon mën nañoo wax ni ren ji li nga xam ne mooy kuréelkat yi euh, li mel ne kuréel toll nañ ci ay euh, ñeent fukk ak benn yoo xam ne ñëpp war na ñoo jàngee fii programme yooyu yëpp dañ koy jël dugal ko ci tablette yi nga xam ne ni moom lépp rek da ciy dugg ku jàng jox sa morom danañ fexe ba it euh, ni ko sëriñ bi la rek bis bi bisu sant la bisu benn la bisu jaamu yàlla la danañ fexe ba xasida yi tamit yëpp xasida yëpp day dugg xas day yox ci màggal ak ci safar lépp rek day dugg ci ci ci xam ne mooy wàllu njàng mi. waaw moom laa la wax nee naa la ren ji ñaari site la ñuy jàngee fii ñu nekk ni mooy ko ba bulu ko sëñ Fallou gi ni ñu fiy jàng ni ni njàng mi programme bi ni tàmbalee nga xam sa ngi tàmbale noonu la amee fële te njàng taxaw fii ba 19 safar ci suba noonu lañ koy dundale ci màggal gi fii nga xam ne mooy ko sëñ Fallou gis nga système digital bi ñu utilisé lépp rek di ak yokkute ndax jamono moom buy dox da ngay ànd ak moom di dox nga xam ne ni système bi ñu ko jëlee mu nekk système boo xam bu tawfeex la nga xam ne ni ki nga xam ne mooy jàng du am benn yoon doo gis téere boo xam ne ni doo gis leen loo xam ne da koy da koy gàllankoor lépp rek. waaw noonu lañ ko programme nga xam ne kuréel gu ne kuréel guy toog rek say xasida moom programme nañ ko boo ñëwee ñëw toog yow moom dangay jàng rek waaye am na moniteur boo xam ne moom moo koy moom moo koy moo koy doxal lépp di dox nga xam ne yow da ngay jàng boo jugee keneen ñëwaat kenn ku ne it xam nga bis heure bi ngay jàng bis bi ngay jàng xasida yi nga war a jàng lépp rek programme nañ ko mu nekk liggéey moom liggéey bu tawfeex la waaw nii moom dañ ko am nañ yéene fas yéene ko wéy la ko nii ndax màggal gi moom chaque année rek nii lay demee chaque année rek da gis lu yees loo xam ne nii day ànd ak àdduna di dox waaye lépp rek sëñ Tuubaa moo koy ndax bisam bi